bismillahi irrahmani waxi sëriñ bi ci hàddiya sëriñ bi nee na bokk na ci njariñ hàddiya day barkeel lu bari woon di bari lu nee woon di def fu dara nekkul wér na lool am na hàddiya ju mas ñëw ci sëriñ bi am ganug naar bu fa ñëw sëriñ bi wax ni nañ jël lépp jënde ko warga ak suukar ak naanaa jox ko gan gi bañ ko ko joxee nanguwu tëjël daa di wax ndaw la ni ko li feek gàddu lu ma àjjana du ma ci naan ba mu ko waxee sëriñ bi mu ni bu ci naanoon benn toq kenn mënu koo teeta bi sawara loolu mooy gàttal bi siiw na am na ñaari naar yu ma si ñëw ci sëriñ bi ni ko dañ doon sàkku si ndimbale sëriñ bi woo sëriñ ali touré ni ko ndax am nga juróom ñaari téeméeri dërami ngurlu mu ni ko waaw mu ni ko àndal kii jox leen ko mu ànd ñoom jox leen ko teg ca ñetti téeméeri dërëmi ngordu ni leen maa ko màggale ndigal gi ma ko sëriñ bi digal bam ñëwee leeral sëriñ bi loola mu ni ko Aliou Touré fab alal ju la leew joxe ko yàlla rekk tax moo di ñeme waaye xeex a ak luubute rekk la wér na lool sëriñ tuuba xaada la wala maxtaar la nee na alal yi ñëw ci moom ñetti xaaj la sawara suuf ndox alali sawara ku ko lekk lakk alali suuf ku ko lekk faatu alali ndox moom dara newu ci wër na am na ku mas a jox sëriñ bi deru gaynde ba muy dellu sëriñ bi joxaat ko ko ni ko bañ rendi moom lañ mën a jullee wér na lool waxi sëriñ bi ci doomam yi sëriñ bi nee sama doom yi am na ci ñoo xam ni du ma wax ci ñoom dara lu dul bis penc am na ci ñoo xam ni danaa wax ci ñoom tuuti man nag jikkoy yonente bi sallallahu taala alihi wa laa yore te jikkoy yonente bi sallallahu taala alihi kenn attanu ko moo tax ma séddale ko sama doom yi daa di ni Muhammadu Mustafa mooy yonente bi sallallahu taala alihi wa sallam xarfan bi xarfin Muhammadu Falilu juboo gi ma jubóog sama boroom ba lu ko wax mu def ko moo ko yore abdul ahad alxuraan laa ko jox daa di ni maay ilimaani ilimaani yépp loolu mi ngeeg abdul xaadir liggéeyloo gi ma daa liggéeyloo jaam ñi ngir jariñ leen loolu mi ngeeg saali téere yi ma daa taalif ngir xamal ci jaam yi ni ñuy jaamoo seen boroom loolu mi ngeeg Shuaybu xarab itam fonk naa ko ngir yonente bi sallallahu taala wa sallam loolu mi ngi muhammadul murtada daa ni ñaar rek laa ci wuuteel muy muhammadul amin ak muhammadul bashir ndax muhammadul amin day mer te man duma mer te bu meree sunu borom mer muhammadul bashir nag moo yor gaalug te man maa moom àjjana kon jubóolee nag moom mu andi leen fi man wër waxi sëriñ bi ci sëriñ abdul ahad sëriñ bi nee na sëriñ abdul ahad dama am ci moom yaakaar wér na lool sëriñ bi nee na ku mën turul abdul ahad tem du tabbi sawara abdul ahad wér na lool waxi sëriñ bi sëriñ abdul xaadir sëriñ bi nee na abdul xaadir jaylaani moo sàkku ci moom kum ko tudde mu tudde ko sëriñ abdul xaadir wér na waxi sëriñ bi sëriñ saalihu sëriñ bi nee na saalihu sama dooma wér na waxi sëriñ bi sëriñ Suhaybu sëriñ sëriñ bi nee na sëriñ bu sama baay la wér na waxi sëriñ bi sëriñ Murtada sëriñ bi nee na Murtada kuy gudd pànk ci penku bi la siiw na waxi sëriñ bi ci ñi ko topp sëriñ bi nee na ñi ànd man ñaar lañ ba ñett am na ñoo xam ni pagute moma bolé ñom amna ño xamni ciosan moma bolé ñom ñi nga xamni ciosan moma bolé ñom booleeg ñi nga xamni bama sunu borom ne dana la usuf. kaw suuf nga doon jëw ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sallam bind mindeef yi la ma booleeg ñoom ñoom bañ ñëwee juguñu ci lama bëgg ben yoon motax nañ ma sagal nañ ma niñ ma noppale mooy bu yomal xiyaamee duma leen fóot ndax takkuñu liñ ma sagale mooy bu yomal xiyaamee ku fa gënu nit yaa fa gën yàlla nañ ci bokk ci ñu ko sagal noppal ko ñi nga xam ni pàggutéef moo ma booleeg ñoom ñaari xaaj lan ñi nga xam ni dañoo ñëw ci man di wut lu baax te seen bët teggeegu ca benn yoon ban am ko ñoo ñi noppal nañ ma waaye xaaj bu njëkk bi moo ma leen gënal beneen xaaj bi mooy ñi nga xam ni dañoo ñëw ci man ngir lu baax waaye dañoo xool laneen balaw la muur seeni bët ñu topp ko ñooñu bu ëllëgee li ma sunu borom may ci lay doon ndox ak saabu fóot leen bañ set wér na lool sëriñ bi mas naa wax ca jolof sëriñ fallu ak sëriñ ma sàmba ak sëriñ moo raq ya busa man mii duma bàyyi kenn man mii duma mangi kenn man mii duma nijaay kenn li ma yor day jaay ku jébbalu rek moo ko moom wér na lool sëriñ bi nee na taalibe ñeenti xaaj lan ki aju ci man di jaamu sunu borom di ma liggéeyal ni ma ko bëgge kooku buy faatu tàbbi ajjana deefu ko xisaab adduna ak alaxira bi mooy ki aju ci man di jaamu sunu borom te du ma liggéeyal kooku ci fen wu nëbbu la nekk ñetteel bi mooy ki aju ci man di ma liggéeyal te du jaamu sunu borom kooku danañ ko xisaab ci adduna waaye deefu ko xisaab ëllëg ñeenteel bi mooy ki aju ci man duma ma liggéeyal du jaamu sunu borom kooku jote wu moom dara adduna ak alaxira wér na lool mooy waxtaan wi mu mujj waxtaan ci mbooloo waxi sëriñ bi ci maam Ceerno sëriñ Tuubaa xaadalowoo laa moxtaalowoo bi muy nekk gànnaar nee na kuy romb maam Ceerno di ma fekk si fii te woolu wuma la fi boo déggoon waneen wàllu yu faneen itam seeti ko wér na sëriñ bi nee na man doy na waaye ànd ak ceerno ëpp na am na ñu ci yokk ànd man ku ko def bu ëllëgee sunu boroom dana la fay ak bu yonenteem sallallahu taala wa ak man ku ànd ak cerno nag danañ la fay ma fay la wér na lool sëriñ bi nee na cerno xamal naa ko lama ma xamoon booleeg lam xam wër na sëriñ bi nee na ko ni ma soppe yonente bi sallallahu taala alayhi nga ma soppe moo tax loo bind mu am man nag lu ma xalaat mu am kon bul bindati moo waral daawul bind wér na waxi sëriñ bi ci maam Cheikh Anta sëriñ Tuubaa xaadalaho laa maxtaar loo nee na dénkaane koo wóolu ceerno laa wóolu dénk naa ko lama ma doon dénkaane maye ko la neex Cheikh Anta moo ma neex may naa ko la doon maye jënd nag ko am njëg Ibra Faal moo am njëg jënd na la ma doon jaay siiw na sëriñ bi mas na ko digal muy jàng nooru daare ni mu ni ko daa bari lool sëriñ bi ni ko wutal ku la koy jàngal nga di ko dégg siiw na sëriñ bi nee na ko ci def lu la neex nga yéega ci yàlla wér na lool waxi sëriñ bi ci sëriñ Masamba sëriñ bi nee xaside yi ñoo sàkku fa sunu boroom sëriñ Masamba di leen bind moo tax mu leen di bind wér na waxe sëriñ bi ci sëriñ ma numbe sëriñ bi nee lima li ma sëriñ ma numbe jox kenn joxuma ko li ma Ibra Faal liggéeyal kenn liggéeyalu ko siiw na waxe sëriñ bi ci Cheikh Ibra sëriñ bi mas na waxtaan ak sëriñ Abdul Karim Touré ci maam Cheikh Ibra waxtaan wu yàgg te lu wax du ca dellu bam yàgg mu teg baaraamam ci bëtu ndey jooru sëriñ Abdul Karim ni ko loo man di gis Ibra Faa raw na tegaat baaraamam ci nopp ndey jooram ni ko loo mën di dégg Ibra Faa raw na loolu lu tëje waxtaan wa wér na lool sëriñ Mbàkke bu sa mas naa fekk sëriñ bi mu toog teg ñaari loxoom ci boppam di wax naan Ibra Faal di gërëm naa ko ba ko Sëriñ Mbàkke laajee lu mu def mu ni ko dama teg fa sama borom teg wér na waxi sëriñ bi ci sëriñ Daaru Xasan Njaay sëriñ bi nee na Daaru Xasan Njaay ku yeex mu dab la siiw na waxi sëriñ bi ci sëriñ Abdul Karim Ture sëriñ bi nee na Jibril alayhi buy ñëw ci man melow Abdul Karim Ture la yor ndax daa nuroog daxayatul kalbiyu wér na lool waxi sëriñ bi ci sëriñ sàmba Diop Saam sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na bis sëriñ Masamba jóob mbooleem tiit yi ñuy wax bis pénc bokkoo ca wér na waxe sëriñ bi ci sëriñ Abdourahman Lo sëriñ bi moo ko digaloon muy neefe la alxuraan yépp di ko def ñaari rakka wér na lool sëriñ bi nee nañu moo ko fàgguloon kàttanu malaaka ak muñuk suuf ak tabek taw wér na sëriñ Tuubaa xaadalaho la maxtaar loo nee na am na xéewal yu ñenn yore bu ca soxla woon ñooña duñ ko gis wér na waxe sëriñ bi ci sëriñ Balla Faali am na ku mos ñëw ci sëriñ bi ni ko dama bëgg ku ma defar sëriñ bi ni ko defar taqoo la laaj te man mënatumaa takkoo kenn daadi ni ko dangay taqoo ko ma defar ni ko ball feeli defar naa ko wér na lool jaamuk sëriñ bi sëriñ bi diggante timis ak gee ñaari rakkaan la ci daan julli benn bi sóoratul bàqarati ñaare bi sóoratu ali imran wér na sëriñ bi nee nañu guddi da daa bindu lu ci bëri ba fajar daana jàng alxuraan di ko tari ngoon bu dee suba daana ko xool wér na lool melow sëriñ bi ci bind ak ci wax sëriñ tuuba xaada lawo la maxtaar lawo dénk ko dénk ko la daa wax waaye dawul wax dée ko wér na lool sëriñ bi daawul nangu kenn jël dara wala nga teg ko te waxoo bismillahi daawul nangu itam jël dara ci loxob càmmooy wér na sëriñ bi nee na saalum bu ma doon ganewaat adduna fa laa koy defe bu ma doon jàngaat gànnaar laa koy defe wër na sëriñ bi bu daan wàññi benn ñaaru ñett la daa wax kuy wax benn ñaar mu ni daa tubaabe siiw na ñu ñëw ci bu ñaat téeméer bi ak fukk ak ñaar ci lan toll fi mu ne sëriñ bi taxawaay sëriñ bu la ko gën a nuru baaraami tànk sëriñ Saalihu la ko gën a nuru ak gaaw aku njaxlaf sëriñ Abdu Xaadir la ko nurool baaraamu dëyu tànk sëriñ Suhaybu la ko gën a nurool siiw na sëriñ bi nee na feex mi ngi mel ni ngeen toog toog fi bërëb naaju tàng lool amu tax bu jub di dem ba jub këram am ku ni kenn wool ma ko kooko jug di ko woowi ci naaj wi kooko geestu mu daal koy tàllal loxo mu dëpp wér na kër sëriñ bi mas naa bari jinax lool ba ñu yàq tappi taalube yi andi fa janaab mu lekk jinax yépp sëriñ bi ni neke li muy ñàkk njariñ lépp moo te ne ñi fi newoon janaab mooy muus wér na lool sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarloo nee na samay wax bëggul yokk bëggul wàññi wér na lool sëriñ bi nee na luñ ni waay maa ko wax mu koy sikk caka ko wax la sëriñ bi nee na ku xas saytaane ku dul man bu ko neexee fayu lax ndax def loo na la ci bis wala mu wax loo ca loo xam ni sa saa su xel de demee nga rëcc ko wér na jëfiinu sëriñ tuubaa mas naa am ku andi gura ci sëriñ bi mu laaj ko loo ci jublu mu ni ko damay dégg ni da ngaa bëgg gura mu ni mu ni nañ seet kër gi lu fi gura ñu génne ko man kenn duma màndargaale dara lu dul bëgg yàlla ak yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam na lool am na ku ma ñëw ci sëriñ bi di sàkku ndimbal ni ko ginnaaw bu yàlla jàllee ak yonante bi sallallahu taala alayhi wa sëriñ bi ni ko buñ jàllee dooma fa fekk wér am na ku ma a ñëw ci sëriñ bi fekk ko muy tomb mu jël hadiye jam yoroon teg ko ci kaw kaamil ba fa tege sëriñ bi geesu ci wetam gis ko daldi koy sànni wax ni xam kañ la fi seytaane gëj a dugg waaye tey dugg na fi daldi di digal ñu jël ñaar fukk ak juróom ñett ca xaalis ba jënd ca ñeenti sondeel taal ko ci ponk néeg bi siiw na sëriñ bi mas naa romb toolub jàmbur aw fasam dëgg fa bantu xat mu taxaw fa xaar ba boroom ñëw mu jéggalu ko ba mu jéggal ko wér na lool sëriñ bi gaawu digg weeru tamxarit la mujj a sëriñ Mbàkke Jaxate moo ko mujj wat mu jox ko kawar ga ak yabiti gura ni ko lii moo gën ci yow adduna ak li ci biiram wér na lool sëriñ bi ab kaamil la daa teg ci boppam door a kaalawu wër na sëriñ bi mas naa génn ñu koy lalal ak basang mu àgg suuf daadi ni wala da faras naa fa ni amal maahidun wér na lool sëriñ bi mas naa génn ci jàkka ji am naar bu ko dab ni ko yaa cheikh maasalaka kum fi saqara di ko junj ay taalube yoo xam ni sëriñ bi da leen doon liggéeyloo aw sàkket ñu nekk ca ba bañ julli di ko xamal ni loolu jëfi waa sawara la ndax xaaloo lam nakku minal musallin ji ci tege sëriñ bi ne ko fa waylun lil musallina di ko xamal ni julli taxut a mucc daal di digal taalibe yi ñu firi lañ jotoon a sàkket bañ noddee ba léegi wér na lool boo xoolee waxtaanu kraat nuroo na ak waxtaan wii waaye bokkuñu mooy waxtaan moom defoon ci ginnaaw sëriñ bi mas na ànd ak sëriñ mañaaw silla booba nekkuñu mag ci saahir ba àgg ci menn pax sëriñ bi ni ko yëral mu yër sëriñ bi ni ko ndax lëndëm na mu ni ko waaw mu ni ko bàmmee la ko gën a lëndëm ginnaaw bi sëriñ bi sëriñ bi jugee ci géej gi la ko xamal ni booba laa la ca musal ak tattari bàmmeel wér na sëriñ bi xaada lahu allahu maxtaara lahu nee nañu matum njalamaan la daa taaloo wér na lool sëriñ bi mas naa ñëw xuru mbàkke cim nawet doon siyaare ci armeel ya ba muy dellu otoy tubaab bi bari lool ci biir tooli jàmbur yi sëriñ bi woo wax ni nañ xajma ma fi yàquñu ñu fay ko ñooña far ko def hadiya loolu mooy gàttalu nettali bi wér na lool dafa ñëwoon ngir siyaare si kenn sëriñ Mor Seck Rijaal nee sëriñ Tuubaa mas na koo wax ayu bis gi may naa la ngay ñëw ci man may wax ak yow nee na ba njëkkee ñëw dafa toog fu sori dànd ko sëriñ bi di jàng di bind ba mu yàgg mu ni ko moor ndax xam nga nu ma tudd mu ni cell sëriñ bi ni ko man ahmadu laa tudd way di bind ak jàng bam yàggaan mu ni ko moor ndax xam nga fu ma dëkk mu ni ceel mu ni ko jannatul firsi laa dëkk di jàngaat ak a bind bam yàggati mu ni ko te jannatu firdawsi googu ku kudul yonente bi sallallahu taala wa sallam mënu faa yóbbu kennam te gannaaw badar la ko man wéyaat di jàng ak a bind bam yàgg lool mu ni ko moor ahmadu mii di wax ak yow fa la dëkk ak ku ko yaakaar yàlla nañ koy gën a yaakaar saa bu jot saahir di jàngati ak bind bam yàggaan mu ni ko moor ndax xam nga lu ma doon mu ni cellu mu ni ko kitaabullahi te kitaabullahi boobu yonente bu fi mase ñëw jamono dañ laa jukkir rek waaye moor ku gisul ahmadu mii gisul bu mat ba wér na lool nee na lam ko wax ca ay bis googa du wax lépp sëriñ bi nee na wàccoo na maag yéen wax naa ngeen dégg ma jëf ngeen gis ma bind bàyyi fi wér na lool sëriñ bi mas na dugal tànkam ci wu dàllam am lum ca daj mu ni nañ ko seet waaye bu dee si ndax buñ ko rey ñoo rey ko fa sansa xooluñu si ndax la walla déet yaakaar ni luy lore la fekk si ndax la wér na sëriñ bi mas naa romb sëriñ Habibu Mbàkke ak rakkam ñuy nelaw mu laaj ko kii kan la mu ni ko man la Habibu ak mbàkke soxna astu sëriñ bi laaj ko ndax réer ngeen mu ni ko déedéet sëriñ bi ni man de séq na ma seen bàyyi kóllëre goo xam ni jommante naa ngeen di fanaan ci sama kër gi du ngeen reer daal di reylu ab gàtt wér na sëriñ bi mas nañu ko laaj wàlliyu akub jàngkat ak ku ragal yàlla mu ni leen cheikh saat bu mooy waliyu alhaaji malik moo di jàngkat man nag maaragal yàlla wër na mas naa am ay naar yu doon nuyu sëriñ bi ku ne naa sharif laa sëriñ bi ni leen ku ragal yàlla ku ne sharif la wér na sëriñ bi am na kum masa yónni mbàkke kajoor ak guddi mu ni ko lankuma waaye dama fee ñimewul siiw na sëriñ bi nee na bu ngeen bëggee xam ñi nangu nday xool leen ñiy dugg ci sama buntu kër gi ak a génn siiw na xar baaxi sëriñ tuuba mas nañoo indi dugub bi maam Ceerno sëriñ tuuba sëriñ bi génn di ko xool ba mu yàgg mu am num joxañ ni ku ko bay ñu ni ko sëriñ al say njaay mu ni nañ ko woo mu ñëw mu ñëw takk téere baat sëriñ bi jàpp ci ni ko bis ni ki tey wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim wér na mas nañoo andi dugg bi maam Ceerno ci sëriñ bi ñamala yabaloon wax sëriñ bi ni ko maam Ceerno nee na maral nañ lool sëriñ bi wax jàngkat yi ñu jàng mawaahibu nafi bañ àggee ci bayit wii muy naa jalala jalaala naa la jamaala mi man taala rabbi samaay mu ni leen baamu leen ko ñu baamu ko mu yëkkati baaraamam jëmee ko asamaan ni rabbu samaay sama soxla mooy ndox xiin wa sàqi di taw di taw ba ñooñee ñoo mujj ñëw ni ko doy na sëkk wér na lool sëriñ Tuubaa xaadalawoo la nee na li may def ci nit ñu topp ko bu ma ko defoon ci garab itam ñu ne te dootuñu fa te loolu julli ñaari rakka moomu ko gën a jafe wér na lool jëmbu si mas nay defal sëriñ tuuba xaadalahoo maxtaar maxtaaralahoo muy jàpp ba mu agsi ci raxas tànk yi sëriñ bi ni ko ma jëmb xoolal tànk bi ni mu tuutee te li yëngu ci adduna bi lépp moo ko yëngal xanaa xamoo ma jëmb man ku ma yaakaar sa yaakaar du tas ndox bu ëllëgee man rekk maa mën a taxaw fa sunu boroom ni ko loo ma sa digle def naa ko te mosumaa def loo tere yonente yi sax duñ ko man te bu boobaa ku aju ci man ci man la la sunu boroom di atte looloo tax ku ma yaakaar sa yaakaar du tas wér na sëriñ Moor Xabsa nee na mas naa xëy si ci sëriñ bi ba mu toogee gis kaamil boo xam ni dafa mel ni dañ koo xaw a sàggane nee na muy wax ci xelam naan kaamil bii fi mu tegee doy na waar lool di sëriñ bi ni ko Moor Xabsa man ma sañ lu kenn señul nee may waxaat ci sam xel naan lii gën a yéeme xalaat rekk ñu di ko dégg sëriñ bi ni ko inna allaha laa yaxfa alayhi shayun loolu mooy yàlla dara na buu ko sëriñ bi nee na ñimewuma bor dama am pay wér na sëriñ bi nee na mboolem ñi ma defar ku ci ne benn saa rekk laa jëf ci moom waaye sama doom yi ku ci ne jëf naa ci moom fukki weer ak ñaar wér na am na bi sëriñ bi di waxtaan jaan juri ñëw tiim ko di melastiku sëriñ bi yëkkati loxoom jëme ko ni ko ndegeem téye nañu sun lor ci yow nanga téye sa lor ci ñun mu ni mes siiw na am na ci taalibe yi koo xam ni daa amoon jaan juy ñëw këram waxtu yoor yoor di dugg ci biir këram di daq ay goneem mu wax ko sëriñ bi mu ni ko bu dikkatee demal ba tolloog moom nga ni ko ahmadu nee na mësta tooñ boroomam mësta tooñ moroomam te bëggul kuy tooñ ba mu ko defee noonu la ko mu jegis wér na am na bis sëriñ bi di julli am jaan ju rëy ñëw dugg ci jëllaabi bi mu wéy di julli ba mu sëlmalee taxañ ko dugg moom ca néeg ba sëppeel ko mu ko doomu aadama mu ni ko lu doonoon say tànk mu ko képp ku mas ñu naan mooy njiitul jamono danaa dikk natt ko ba xam moom la wala déet ci melow yii moo tax bi ma dikkee ma ñëw di la nattu ba xam am na wala déet sëriñ bi ni ko loolu rek mooy say tànk mu ni ko waaw mu ñaanal ko mu ni mes siiw na sëriñ Tuubaa xaalaxoo la moxtaar loo nee na da ngeen dem ba jëmmi jamono jigéen ñi bari lool sëy ta ticc téere yi bari lool dëgg ta liggéey bari lool am ta tic abdourahman ak tandaxiyu nee na dafa mës a jóge gànnaar ñëw ci alxaaji malik si di sàkku ci moom ab junni mu ni ko fekkoo ko fi waaye fekk nga fi xol bu ko mën joxe boo toogoon nag ma jox la ay ñaan yoo xam ni boo ko dee def léegi sunu boroom wërsëgal la mu ni ko dama yàkkamti daa di ñëw njaasaan ci alxaaji mahmud al kuntiyu dis ko ko mu ni ko am na fi waaye dafa am soxla yu fi nekk boo toogoon nag ma jox la ay turi yàlla yoo xam ni boo ko dee wérdu léegi nga am xéewal mu ni ko dama yàkkamti daa di ñëw njaareem ci sëriñ bi laata mu ko diis dara sëriñ bi génn ñetti junni ni ko benn junni bi maa ko joxeel ka am xol bu ko mën a joxe te amu ko beneen bi maa ko joxeel ka ko am te amul xol bu ko mën a joxe benn bi nag man mi ko am te am xol bu ko mën a joxe maa la ko jox siiw na sëriñ bi rëdd bis ñetti rëdd ni maa man ji ci jéere ji fopp maa man ci géej gi fopp ma man ca bis penc ba booba ba booba ba booba am na taalibe boo xam ni ay mbokkam dañ ko doon sonal ci demal jàngi te bàyyi sëriñ bii ngay liggéeyal ba ko sëriñ bi déggee woo ko mu ñëw mu ni ko ndax mokkal nga tàmbali suuratul baqarati mu ni ko waaw mu ni ko taral mu tari ba ca xuddan li mu tàqee ni sëriñ bi ni ko xuddan googu mbooleem alxuraan moom rekk lañ ci sàkku te defal naa la ko ci sa liggéey bi siiw na sëriñ daam abdourahman loo mas naa indi gerte ci sëriñ bi di ko ci ñaan loo def ko ci ñaari morso sëriñ bi laaj ko lu tax nga xàjjale ko mu ni ko lii dama ko leb ci seko yi lii nag maa ko moom sëriñ bi ni ko lii nga leb duma ci ñaan ndax man lu ma ñaan mu am barke te lii sunu boroom bëggu ci barke wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar loo mas naa sol alxuraan ku ñuy wax Moodu Faal alxuraan ci ñetti fan ca gànnaar wér na lool sabuk xalim ak sëriñ tuuba daanañ ko dégg ci fu sori dégg goo xam ni dana la wóor ni kiimtaan la wér na lool sëriñ moodu lamin joob dagana sëriñ bi mas na koy bindloo fekk mu wànnen loola waral mbind ma yeex lool sëriñ bi woo ko mu ñëw mu ni ko tegal sa loxo ci say bët te wax ni wànnen wi bàyyil bëti taalubeb jàmbur mu def ko wànnin ma dem fasansa mu ne ko jugal bind ko andil ma wér na lool am na ñaari soxna yu masa loo ci jamonoy sëriñ bi mu ni leen ku ne war a xuroo ba des yéen ñaar ndax seen ñaari këri ajjana ñooy dend bañ demee ba faatu noonu la seen ñaari bàmbeel denne te teewul ñu sore ay faatu te bañ leen di denc xel demul ca wax jooja sëriñ bi waxoon loolu mooy gàttal gi wér na lool sëriñ Tuuba xaadalawoo law maxtalawoo mas naa wax sëriñ Daaru Asan Njaay ni ko bala ngaa faatu danga nga xam sabi picc yi benn bis mu toog di jàpp dégg pittax muy wax moroomam fuy nuy fanaan tey mu ni ko ca garab gee ñuy jànge alxuraan nes tuuti mu gis leen ñu naaw dal ca garab gam toogoon mu xam xel léegi mu faatu ndax la ko sëriñ bi waxoon ak na wér na lool sëriñ bi neena na mbàkke busa ku ko liggéeyal jariñu looloo waral mu santoon sëriñ Mouhamadou Moustapha ay liggéey ci moom siiw na mas nañoo laaj sëriñ bi ab muñkat akub santkat ku ci gën mu ni leen muñkat boo gis ab santkat la ndax inna fi dalika la ayatin li kulli sabbarin shakur am na bis sëriñ bi di waxtaan ci bis penc ak taraay ga ba wax ni booba ñëpp sama bopp la ñuy wax bam mu des yonente bi sallallahu taala alayhi moom sama xeet wi lay wax bu bis boobaa ba yonente bi sallallahu taala alayhi wa dem aras ba su jootal sunu borom bam ni ko siggil te dem ramu jugee aras jëm fa taxawaay ba danaa ko dogale fàttali ko la ma ko waxoon ca bu naafi antal karimu an alxadiimu dahran udiimu fii ka fanaa'i bu boobaa dana ma yeesala lammu mam ma mayoon ci adduna dooga dem toog ca kerga bàyyi ma fa sëriñ ma sàmba radiallahu taala anhu nee na bi sëriñ bo xee lii dafa yëkkati loxo boppam daadi ni bu boobaa loxo sutuut sii kum seddul da yendoo diñe fanaanee fande te kenn du ci man dara yàlla nañu sedd mas naa am ku ñëw ci sëriñ bi ne ko dama ragal sawara ba mënumaa nelaw mani naa ñëw wax la ko sëriñ bi ne ko manin maa ngi yéemu ci jën wu nekk ci géej gi di ragal daay guy tàkk ci àll ba siiw na sëriñ bi bi muy doog a ñëw njaareem dani nañ ma wutal mbayaar te mooy ko am ko xam àll ba mu ñëwee di màggatum séeréer sëriñ bi tibb suuf ñaan ca jox ko ni ko foofi mas a gis bàmmeel walla nga dégg ko fi nanga fa dem tibb ci suuf si def fi ko dem ba ami fan mu ñëw ni ko fu ma fi mas a gis ay bàmmeel walla ma dégg ko fi dem naa fa sotti fa ci suuf si sëriñ mi ni ko waawaaw ndax gëñ na maa dégg yuuxu wér na am na bi saxaar gi di riir ba jàll sëriñ bi laajte ndax loolu jàll ma ngay riir fam nekk ñu ni ko waawaaw sëriñ bi mu ni ma ni noonu bu ngeen ma noppee gis maa ngi faneen defa def lii may def wér na sëriñ Basiiru ak sëriñ Fallu ak ñeneen mas nañoo toog di waxtaane sëriñ Tuubaa xaada loxo la maxtaar loxo ak di xalaat lu mu doon mu daldi di génn ni leen xaar leen ma ñëw wax leen maay kan dugg ci biir génnaan ni leen bis penc soriwul te buñ fa yeggee dañu xam man maay kan siiw na am na ku masa bett sëriñ bi fekk ko mu yor fanweeri jëmm ak seeni kanam kanam ku ci ne di jàng alxuraan weer na sëriñ mën numbe mas naa ñëw ci sëriñ bi ni ko sama néegub ndey ca aafe ma bëggoon nga tin ma bañ jébbalu ndax ragal naa ñu bi sawara lool sëriñ bi ni ko bu dee loolu rekk dellul kër aafe ñooy mbaa yàllay sawara siiw na sëriñ bi nee na ndaxam ñun dañoo wuuteeg ñañu fi jiitu démb ak bërki démb ndax ñoom dañ daan ñaan sunu boroom mu may leen man nag sama boroom damay may dara ba noppi ne ma ñaan ko wér na lool man maa wax ni loolu nuroo naag li mu wax ni madda liyal xusna wa madda zayat man li yaqulu haaka xabla madiyat sëriñ bi nee na sëriñ aboo bakrin doomam ndëggoom suuf attanu ko loolu moo waral mu gaaw a dem wér na sëriñ bi nee na ku may tëkkale ak waayam xam ma wala xamul waayam wér na lool sëriñ bi nee na li waral wayuma risaala ni ma wayee laxdari yu ak aljuróomi ya boroomam moo ma feeñu ni ma tin ma ndax yow lool laal nit ñu daw jëm ca te man benn téere bii rekk laa dese ci tuyaaba ju may fekk fii ma nekk wér na lool ñi solo woon soldaar ci taalibe yi bi ñuy dem dañoo bari lool luñ doon ñëw ci sëriñ bi di ñaanlu ci mujj ga mu ni leen dem leen ndax ñun doonuñu koo xam ni balaa mën a wattu kenn tiim ko di tifli wér na lool bañ dellu mu ni leen li des ci seenu dund seen tono la deful bindal kenn bakkaar te ko faatu tàbbi aljana wér na sëriñ Tuubaa xaadalaxoo law maxtaaralaxoo nee na sama kafe am na lool bu ma ko ci defoon yéefar yépp tuub wér na sëriñ bi nee na nee na danaa nekk ci weetal yàlla sama boroom ba mel ni kuy jàkkaarlook moom nga xam ni damay fàtte yonente bi sallallahu alayhi wa su ko defee sunu boroom xamal ma ni am na ku war a dox sama digg ak yow te mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma daal di wëlbatiku jëm ci tudd ndami yonente bi sallallahu alayhi ba mujj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dama naan xanaa danga fàtte ni am nga boroom ma daal di walbatikooti ci weetal sunu boroom ba mujj ma xam ni lii mbir mi mooy boole leen ma far sax ci yàlla sunu borom ànd ak yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam xëy na loolu mooy li muy junj dalla ni allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li samadi wér lool sëriñ bi nee na juróom ñaari at yama nekkoon Congo sakku darra feeñ ca bis ba ñuy feeñal yu nëbbu yi waruma sama boroom ca jaamu gama doon jaamu waaye moom it waruma ca fay gim ma ak daal bam ma daaloon waaye àdduna du kërug fay àllaaxira rekk mooy kër waxe sëriñ bi ci yu teqali sëriñ bi nee na kuy santaane luñ mënul ab dof la waaye kuy gàntu luñ man dus gor wër na am na ku doon nuyoog moom ni ko mbaa jàmm rekk sëriñ bi laaj ko luy jàmm mu ni cel sëriñ bi ni ko jàmm mooy jaamu yàlla bërëb buñ ko dul defee bu fa jàmm njëkkee itam du fa mujj wér na sëriñ bi nee na bett ngeen ma ma bett leen ngeen bett ma waaye danaa leen bettaat daa bi may woote njottuma woon ngeen gaaw a wuy si loolu ngeen ma bette xewal yi ma leen defal laa leen betta ni ngeen ciy doxale nag ngeen ma bettaate ni may defaate gi yéen ci laa leen di bettaate siiw na sëriñ bi nee na taalibe buy jëfe ndigal ak ñaanam ak ñaanu sëriñam ñooyam wér na mas nañuy jàng falaaxi bi fadlillahi fi lawxihi jara bi gayri mixaayin doona makrin wala xawfi am ku ko yéem sëriñ bi ni ko sama yaay mutakallim jooju ñépp ñi mel ni yow dugg nañu ci biir wér na mas naa woo ay mag ni leen maa leen moom moomuk aji bind du moomu jënd du moomu donn bu ma neexoon ngeen jaamu yàlla ba sonn ma tàbbal sawara bu ma neexoon ngeen mel ni jur gi ba ëllëg ma tàbbal leen àjjana wér na Sëriñ Tuubaa xaadal wala maxtaarloo nee na jaamu yàlla gu ma ni ci yàlla sunu boroom fay boroom wér na sëriñ bi nee lépp lu baax ba ñëpp xam ni baax na bu ma ni woon baaxul mu bon lépp lu bon ba ñépp xam ni bon na bu ma ni woon baax na mu baax sëriñ bi neena ñett ñoo ma xam te ma wax sunu boroom mi ma bind yonente bi tax ñu bind ma ak murid bi ñu yoor ci bàmmeel wér na sëriñ bi nee na bu am murid faatoo te fekk ma nekk ci dara lu ma dul dog soofus tuuba xasiide yi ñoomay may ci ramm ko siiw na sëriñ bi nee tubaab dalay xupp boo nanguwul mu xëpp la sëriñ bi nee na ñetti géej yi néew na ku ci labul pexam tubaab bi jayu kajoor di ngatum naar bi siiw na sëriñ bi neena kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waaye def boppam la ko def wér na sëriñ bi mas nay waxtaan ba wax lu yéeme am ku ni loolee ka sew sëriñ bi ni ko kenn du ko waxe noonu nañ woo sëriñ Masamba Kanni ba mu ñëwee sëriñ bi waxaat lu yéeme mu ni looloo ko kawem xel sëriñ bi ni kasa noonu lañ koy waxe wér na sëriñ bi bi muy dem gànnaar am na ku jébbulu ci moom ci ñim romboon bam ko defee jur gam yoroon tambulee dee moomin mu wopp am ñu ko wax ni wirdu wi nga bàyyi di jébbalu rekk la mu daldi di xàcc nekkaat ca ba jëmi jamono am ku ñëw ci sëriñ bi gànnaar jóge foofa mu laaj ko ana mu ni ko faatu na waaye xàccoon na sëriñ bi ni ko moo xam bu bàyyee itam man duma bàyyi dana ko yóbbu ba dugal ko àjjana wér na am na ci seex yi koo xam ni bam faatoo ab taawam lañ waajal bam jekk ànd ak taalibe yi ñëw ci sëriñ bi xëy na ngir bëgg mu gën a dëral taalibe yi bàyyam ci moom bañ waxee ba noppi sëriñ bi xool ko yu yàgg ni ko bàyyil sa pom yi te dem jaamu ji yàlla sunu boroom wér na taalibe yi mas nañu ko laaj ku bëgg sa kafe nu muy def mu ni boo koy tàngal loo def da ngay wax bismillah boo demee ba war a segg nga tari lii tiflu ko ci sungu sa door a segg te mooy fatiha ak tàmbulib suratul baqarati ba ca wa ulaika humul muflihun sëriñ tubaa xaada lahoo la maxtaar lahoo nee tubaab yi buñ gëmoon yàlla ma warlul leen ak pay ndax lu ma am ci yàlla ñoo ma ko may wér na sëriñ bi daana bind balla coro mbàkke daa di ni baagi mooy mbër béef laam gi lay duur jiim gi jar raagi rat baagi bisaab kaaf gi karute ku leen di boole di naan dana la jariñ lool ci wérug yaram am na ñu ni day yeex a màggatloo itam wër na sëriñ bi daana wax ni lay duur boo ko naanee da ngay toog fukki fan ak ñett naanaat ko toogaat fukki fan ak ñett naanaat ko siiw na sëriñ bi nee na bàyyi leen ma fasal leen ndax bu ma fasee bu ma feccee wurus lay doon yéen nag bu ngeen fasee bu ngeen feccee xandeer lay doon wér na lool sëriñ bi daana digal kuy attaaya lu muy def boole ca bismillahi arrahmani irrahim suratillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ala ilallahi tasiru l umur buy ñuluk ak buy suukar ak buy xelli wër na wala wér na mas nay attaayal laaj naanaa ñu andil ko nax naa ju wow mu ni duma ma jëfandikoo nax naa ju màggat walla lu màggat ci diine te mooy julli ci njàpp muñ julli farata wér na lool mas naa génn ñu koy waaja lalal basang mu gaaw yegg suuf daa di ni jonjoog suuf daa gën a neex wér na lool mas nay jàpp fekk loxoom neewi waaye teewul muy bomb mu génn ret aka deret di wax naan yaa nooy def waaye man ab jaam laa buñ digal te dinaa def liñ ma digal wér na lool sëriñ bi nee lu dul jàll adduna jëm àllaaxira am ma ca itte wér na lool sëriñ bi mas naa woo jàngkat yi di leen bëgg a bernde nee alxuraan ni ko te ne woo ci sama ñoñ ma bàyyi ko wér na sëriñ bi soccu ngóot la daa soccoo siiw na mas naa bëgg a génn di dajeeg taalibe yi nit ñi bari lool ñépp di yër di ko xaar ba mu génnee gis nit ñi ak rafetaayu kër gi mu ni léegi lii lépp doon ay tojit ak mbaar yoo xam ni kenn du ci nekk wér na lool mas naa woo ab taalibe mu ni mbàkke sëriñ bi ni ko cam adduna moo mën a ware am na jamono ci ginnaaw rek nit ñi li leen daa bégloo mooy bokk ak buur aw sant yëggul dara loolu jeex takk ba mel ni mës am wér na lool mas naa toog ci wetub lal yooyu di ko ya matt mu koy raay naan ko nooy nga lool waaye lali àjjan naa la gën a nooy wér lool sëriñ bi daana wax njaboot gi budul kon ak ragal ci yéen nelaw yu bari ak tàmm noppalu ma jox leen lal yi wér na lool am na ko doon sàkku ci sëriñ bi muy xaw a yeexe tisbaar tuuti mu ni ko dama bëgg di ko def saa suñ ko diglee wér na lool sëriñ bi nee na bi muy nekk gone ci saahir dafa xamutoon lu bari ci wàllu mbay ngir niiw doole ak ñàkk jaxasoog nit ñi waa waajuram itam xamoon na loolu ba tax daawul nangu muy bay waaye lim daa bindal nit ñi ak lim daa jàngale tax na daana bari lu koy dikkal mu daan ko jox waajuram di ci téye li mënta ñàkk ci moom nee na loolu li waral mu ko doon def dafa xam ni nit mënta ñàkk jariñ ci aw xeetam dara wér na lool ay waxam ba tey ci lenn ci xasida yi sëriñ bi nii la daa firee laka rujuu'i maa jumuu'i bi gayri juu'i wala xataa'i lakka jëm na ci yow rujuuhi sama jarsi maa rujuuhi ànd ak samay gàtt bi gayri juu'i ci lu dut ñuy xiif wala xitaayi ndax dama muyul porlu ba wér na sëriñ bi nee am na xasida yoo xam ni ci jaww ji lañ nekk dara du seen liggéey lu dul kuñ fekk nga nekk ca la nga war a nekk ñu teral la jàll kuñ fekk ci safaan ñu toroxal la jàll siiw na ngëneeli sëriñ bi ak i jagleem ak i njàngaleem sëriñ bi am na taalibe bu masa ni ko xanaa tudd giñ may tudd di tudd kaneen mett na la mu ni ko looloo ma dese ci naqar ci àdduna sëriñ bi ni ko saa yu kër yi nekkee genn wax ji di jenn wér na sëriñ bi nee na ku ma defal loo man ma defal la ku ma defal loo mënul ma defal la lu la jomm wér na lool sëriñ bi nee na tuubaa ñaan naa fi ñett yoo xam ni sunu boroom may na ma ko mooy kuñ fi denc du gis xisaab du gis xiqaab du gis xadaab daa di ni xisaab mooy duñ seet sa jëf xadaab mooy duñ la mbugal xiqaab mooy doo tàbbi sawara wér na sëriñ bi nee na tuuba ñaan naa fa kuñ fa denc ñu àtte ci sama jëmm te bañ laa àtte ci sa jëf wér na sëriñ tuuba xaada lahoo xaada lahoo la maxtaar lahoo mas naa wax soxna maymunatul kuura ba mu ko yëtee ab kaamilam yéen jigéen ñi alxuraan daa ci yéen waaye xaside yi woyaf na ci yéen daani ko perantal ku ko jox kopp dugub dana ko mën a lekk mu ni ko déedéet mu ni ko duñ ko waxe noonu danga naan ana num koy def mu wax ko mu ni ko danga koy defub laax jox ko ndeyam su ko lekkee mu doonum soow ñëw ca ween wa mu mën koo nàmp noonu la xasida yi demeek alxuraan lii mooy gàttalu nettali bi wér na sëriñ bi mas naa toggal boppam laaxub lay duur suukar ko woo ay taalibe jox leen ko bañ noppee mu ni leen dañ ma xamal ni ku la liggéey jariñu ma bëgg a sama bopp wér na sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mas na ko fekk muy naan am njàpp itam mu wax ko lu mel noonu wér na mas naa am soxna su faatu woon ci jamonoy sëriñ bi sëriñ bi bari lool lu muy soññ ña koy taxaw bañ noppee mu ni leen malaaka yërmane dañoo taxaw ngir bëgg ngeen noppi bañ tàbbal ko àjjana ndax daa am doomam ju mokkal aw bayit ci xasid ak midaadi yi wala sax mu ni midaadi yi lépp wér na sëriñ bi nee na yéen sama ñoñ ñett yii bu ngeen ci saxee lu ngeen bëgg ma leen koy defal julli jàng alxuraan gàttal ab tànk wér na maam Cheikh Ibra daana def lu ko dal mu ñëw ci sëriñ bi ñaan lu am bis mu ni ko wér ni ab dërëm nag daa jafe wër na wàccaayu sëriñ bi ak jëfinam sëriñ bi dalli karbat la daa sol nawet di sol neppe noor daana sol xaftaan yu weex am na ñu ni daana sol dara dara am na ñu ni daana sol lu dul weex daawul geestu daawul toog jublu futul xibla daawul wax tubaab ci dara daawul laal dara te waxul bismillah daana toog tooginu càpp bu dee bind ak bu bindul nee na nee ñu guddi la ëppoon lu muy bind daana wax xàkkasaa lu bari bu gisee lu ko neex wala mu dégg ko daana jëfandikoo xaal ak kafe ak ataaya ak laax ak baraay bu daaree day muuñ daana wax ndaxam lu bari ak di laajte ba noppi door a wax wér na lool waxe sëriñ bi ci hadiya ba tey sëriñ Moodu dem mas naa wax sëriñ bi jox naa la sama jaamu yàlla yépp hadiya sëriñ bi ni ko yaa ngi mel ni ku yoru kopp ndox ñëw ci borom géej booleek moom wér na sëriñ Jolo Siise mas naa jox sëriñ bi ab dërëm maam Cheikh Ibra jox ko ab junni sëriñ bi wax ni boroom junni bi ak boroom dërëm bi ñooyam tuyaaba ngir yéeney borom dërëm bi wér na mas naa am ko jox sëriñ bi ab saatu haddiya mu ni ko loo ci jublu mu ni ko dama koo gis mu rafet rek ma jënd ko andil la sëriñ bi ubbi ko jaarale ko ci ci kanamu kooku ni ko kon ma dox sa digg ak seytaane wér na mas na am soxna su ko jox ab kopp haddiya sëriñ bi ni ko loo ci jublu mu ni ko dama ko romb mu rafet rekk ma jëndal la ko seriñ bi ne ko am nga ci kopp bi loo xam ni lu dul kopp bi mënula ko woon a may man itam sama téere bi doonte seetlul itam yal na ma ci sëriñ tuuba defal lu kawe njot ci adduna ak alaxira allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi lii ak xamle la saa soo gisee yow mi yër ma nettali ba noppi teg ci wér na lool xamal ni loolu nettali bu wér la buñ mën a ni sëriñ bi moo ko wax doomi sëriñ bi wax ko walla magum sëriñ Tuubaa te muy lu siiw ci diggante mag ña ak ña teew bu ma nee wér na rekk loolu mooy nettali boo xam ni mag ñu bari wëral nañ ko bu ma nee siiw na mooy nettali boo xam ni baat ya yanu na max naa ci ni sëriñ bi moo ko def te ñennati mag di ko nettali bu ma wër na mooy nettali boo xam ni moom it bëri na lu ko nit ñi di wax te it yanu na max naa waaye boobu ku gis nettali bu ko te kaw te safaanoog moom man nga koo bàyyi xam naa sax du bari ci téere bi kon foofu la xaaj bu njëkk bi yam ci waxtaani Sëriñ Tuubaa sëriñ alhaaji mbàkke xaadimul xadim def ko yal na sëriñ tuubaa nangu lépp mbindam ci saahir ak batin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu